Sëriñ Mbàkke Fall di rakk ci xalif général di Baye Fall sëriñ Cheikh Jëmb Fall euh, jiiteel ko comité bi nga xam ni moo war saytu mbirum gàmmo gi dañ ko doon defee at yi weesu kon ñun noo ñëw ànd ak euh, njabootu sëriñ bi euh, ay ay boppam ak ak taalibe ñu gën cee ràññee ñi nga xam ni ñoo bàyyi ko ci sunu kër maam mbayloo Lo fii ci Madina Fall noo àndandoo sëñ bi yabaloon nu ñëw nag saytu mbir mi waxtaan ak autorités yi ni nga xam ne noonu lañ ko baaxoo doon defe ak ñi nga xam ne kër yi nga xam ne ñooy amal gàmmo gi at mu jot itam noonu lañ koy defee eh, wax dëgg yàlla ni ko gouverneur waxee léegi eh, ñun am nañu satisfaction ci li xewagoon gis nañ ci ñoom moom gouverneur te li ñu gis si ñoom xam ne li ñu gis si moom xam nañu moo ne ci ay kilifaam mooy disponibilité bu mag sëkk euh, point yi nga xam ne moo doon fi indiwoon xam ni euh, lenn li sax daaw amoon nañ ci ay rëq-rëq yoo xam ni yii euh, moo gàllankooroon na liggéey ba mujj na sax yenn yi dañ ko mujj bàyyi ndax ñàkk ko mën a matale ci njaboot gi yëpp loolu ak yu demee noonu yëpp wax dëgg yàlla waxtaan nañ ko ak gouverneur bu ci nekk wax nañ ci li nga xam ne moom la ci man la ci tolloo ak man-manam la ci dul tolloo ak man-manam itam xëy na sax jombul administration man na ko kilifa mi nga koy siiwal mooy le ministre le ministre de l'intérieur wax na ko ministre moom wax nee na mi ngi liggéey ci turu ministre de l'intérieur comme ni ma ko baaxoo defee ndax mooy kilifaam waaye itam da ko war a rendre compte immédiatement xamal ko liggéey bi ak noonu liñ fi indi ci ay doléance lan la ak ndax lu ci xalaatam kon mën nañu am yaakaar kii fi fekk eh, wan nu ni eh, pare na lu mu mën a def mu def ko waaye ca kaw itam ka ko yilif itam taxaw na ci gannaawam lu mu mënul mu àggale ko kon loolu de jar naa sant yàlla kon sunu xol sedd na yal na nu yàlla dimbali rek ba nu àgg ci ak jàmm nin ko bëggee nu amee ko ni ni ko sëñ bi bëggee mu amee ko ni ndax moom sëriñ bi moom bu amee li mu bëgg rek nun la mën a yem bëgg sëriñ bi rek mooy sunu bëgg kon nag noo ñaan rek san san borom dimbali ba lii mënu sant rek eh, mu am ci moom ndam am ci la ko ci gënal te la ko ci gënal mooy li gënal mooy li li jëriñ li jëriñ taalibe yi rek ak ak njaboot yi fii dafay gàmma dafa yàgg ci kër Cheikh ra ndax ku ne xam na ne Sëriñ Tuubaa wax naa ko daaw yàgg naa gàmmu ndax ku gàmmu ca gànnaar war war ngaa xam ni kon du ko tàmbalee foofu di ko bàyyi te ñi nga xam ni ñoo doon ak njabootam bokk na Cheikh ra lu seen sëriñ def ci wàllu diine ñu jàpp ya kon cheikh ibra yag ne fi ci Thiès wax nañu sax defena 1908 gam na fi ci kon koku kon gam ak Thiès yag na du caagee day day day xew-xew bo xani bi rek eh, de nga dan ko dan koy def rek ni ndax ndax topando topando wunu lu yag li ci cheikh ibra gam sax bu neexee sax ñu ni mo sax magal ko tuba gi ni magal waaw kon nag noonu su gàmmo suñu aada la suñu cosaan la bokk na ci suñu suñu suñu su suñu yëngatu bokk na suñu jaamu yàlla bokk na ci lu ñuy lu ñuy wanee nu nu fonke yonente bi sallallahu alayhi ni ko sëriñ bu fonke nu ànd ci ak moom loolu nag moo tax ba Thiès euh, moom ku ne xam ne nag Baye Fall bi mooy seen seen gàmmo euh, day day day day àgg fa mu war a àgg waaw kon nag euh, loolu ñu xamee ko noonu rek ñun daal du lu bees toppandoo woonu lu fi yàgg am la kon nag uh, bu xewee rek uh, dañuy bëgg rek lañuy lay xew ci yeneen ci ci yu mel noonu bu amee. Mm-hmm. taxawaay yañ cay am rek. Mm-hmm. Uh, administration tax am amee ko ci ci ci kër gi rek. Mm-hmm. loolu rek la ndax ñoom itam loolu lañu bëgg ndax ñoom itam bëgguñu. yoo xamante yaakaar ngeen ñoom engagement yi ñu jël fii dinañ ko respecté lu eh, waaw wax nañ ko wax nañ ko am nañ ci yaakaar am nañ ci yaakaar yaakaar rek lañ ci am nag ndax nit ki moom lam la wax. ni la dina ko def te kilifaam wax ko ne ko euh, déglul ma leen euh, boo noppee nga wax ma kilifa ga day mel ni kon moom lu mu mënul moom mii dina ko ko mottalil loolu la ñu yaakaar rek te itam yëg nañu ko yëg nañu ni daaw la fexe woon euh, loolu loolu gënul woon ci ñoom gënul woon ci ñun itam ndax ba ñuy wax lan doon wax ci ci ci tuuru sëriñ bi di yemale mbir ma foofa ndax mënuñu xam nu ñu koy séddalee ndox ma mënuñu xam nu ñu koy séddalee bu dee bi foos yi mënuñu xam nu oto yi nu koy séddalee ak yeneen yi ci toll yëpp mujjoon nañ ko bàyyi ñoom xam nañu loolu reconnaître nañ ko xam nañu loolu waru woon a amee noonu xam nañu kon euh, am nañu yéene nañ ko bëgg ñu amee ko ni nan leen ñaanal nag li ñu li seen yéene mu mu feeñ ba ñun ñëpp ñu am am ndam ci lii ñoom ñu am ci ndam ñun tam am ci ndam sëñ bi am ci ndam sëñ Cheikh Mbacke Fall eh, ak délégation bi mu àndal Euh, di si ràññee waa kër looyeen yeeg ñi fi nekk ñëpp daal taalibe yi mu àndal. Euh, di wax ne tam réunion bi ñu def réunion bu am solo la li ko yombal nag maa ngi leen si gërëm ñoom mooy laata ñuy ñëw si ñun dañoo toog waxtaan ñoom seen biir ba tënk lu bari moo tax bi ñu ñëwee lu si nekk dañ ko wax dañ ko càmbar rek xool li nga xam ne mën nañ koo defal ñu def ko li nga xam ne tamit mën nañ si diggee ñu diggee si euh, buñ ko xoolee mën naa wax ne daal li si gën a bëri li li ñu laaj mën nañ ko jëfe mën nañ ko jëfee am na nag ñetti point ba ñeent yoo xam ne peut-être am na lu ñu si jot war a desandi ñu war koo lijjanti te loolu incha allah ministre de l'intérieur Aly Ngouille Ndiaye mu ngi bàyyi xelam si suñ jotaay bi dafa noonu bu ñu si génnee naa ko rendre compte pour moomu jàppale si bi su njëkk mooy mbiru ONAS ONAS nombre de camions yi ñu joxe woon daaw jéeg Euh, moom moo nekkoon référence bi daaw joxewuñu wuñu wala li ñu joxe dafa néew ba sëriñ bi dafa jàppoon ne ko comme mënu koo séddale mu mu bàyyi ko moo gënoon parce que boo joxee ñi ñii mer euh, donc nga bàyyi comme saa kenn bañ am kenn waa ku kuy dajalee boo say mbooloo te mënoo mënoo li ñu la jox mu loolu moo indi loolu. ren am na ñu ko ñu ko wax li ñu ko bëggee incha allah dañ ko wax ministre bi pour ñu xool jëm ni ko defee noonu beneen bi muy wàllu ndox mi. foofu dem nee na euh, liy wutee euh, Medina Fall Kawsara Fall ak zone boobu ak yeneen bërëb yi mooy ñii dafa bëri ñoo xam ne dañuy ñëw wàlliyaan si te bu ñu ñëwee si kër sëriñ bi la ñuy campé dañ fay dëkk dëkkuñ si ay kër dañuy nekk campé si ñooñu il faut nga utaleen toilette mobile il faut nga utaleen ndox mu ñu naan dafa uteeg ñi nga xam ne dañuy ñëw dëkk dal si ay kër xam kër goo ñëw nga boo fa dal lu mu bon bon am na robinet am na gànnuwaay douche bu fa nekk mais fii si bërëb bi ni mu ni mu ni mu mel pour ku xam zone boobu loolu daf ko laaj loolu tamit moo tax ñu ne en dehors de toilette mobile que citerne ndox yi ñëw nañ jël benn citerne positionné ko foofu mu mu yokk si citerne bi nga xam ne moom la seen Cheikh Ngom di joxe foofu ñaar yooyu bu ñu fa nekkee sur place lu ñu si soxla si appoint mu fekk si leen foofu mais mu fekk moom am na lu ñu téye ba pare loolu tamit incha allah dañ si góorgóorlu point bi mooy mbiru yoon yi Ageroute wax foofu tam euh, mbir moo xam ne bu ñu bu leen soxal la bu ñu soxal la premier ministre am na lu mu si lu mu si santoon ministre Abdoulaye Daouda Diallo am na lu ñu si santoon ñu ngi koy càmbar waaye xam nañ ne Ila Touba bi dafa jëloon lu bari si si si organisation bi ak si si si tëli yi ba lu gën a bëri daf koo xawoon a dandal tuuti mais dañu ne en attendant li ñu mën def ñu def ko li nga xam ne jàpp nañu mënuñu ko def si diir bi parce que gàtt na ñoom seen bopp wax nañu ay yeneen euh, piste pour ñu jaar si par exemple wax nañu bu dee kër sëriñ bi la am na foo xam ne bu ñu ko jàppee chargé ko ne mën permettre ñu mën a contourner zone bi nga xam ne dafa am suuf te xaw a ñaqare jaar pour ñu mën fa jaarangum bu gàmm gi jeexee eh, bu ñuy liggéey dëkk bi avec Promoville wala avec Ageroute ñu mën a jégal liggéey yooyu defe naa ne eh, li ci des nag eh, mooy service d'hygiène wax nañu ñoom tam ñu ñu góorgóorlu parce que si nawet lañ génn gunóor yeeg yu sew sewaan yaa fa te bërëb bi ni mu mel ni mu melokaanoo bu fekkee ne jàppale wu leen si loolu nit ñi buñ ñëwee même buñ fa bëggee nekk à l'aise peut-être que am lu ci manqué donc daal lis nag mooy yi nga xam ne ñu ngi delloo di gërëm sëriñ bi ah ak mboolem délégation bi si seen ubbeeku si seen xel bu yaatu ak si seen seen seen vraiment collaboration par rapport ak état bi donc collaboration si ak état bi pour ñu ñoŋal seen organisation bi parce que am ñoo xam ne dañuy ñëw ne ñu ah lii lañu bëgg te duñ si indi benn pexe waaye ñoom bu ñu si lii am na si ay secteurs yoo xam ne ñoom seen bopp dañuy wax ne ñii lii ak ñu mën nañu ko jëfal suñu bopp donc vraiment ñu ngi leen di gërëm baax di leen sant di gërëm sëñ bi encore une fois di ñaan yàlla mu ñaanal ñu euh, ba yàlla may ñu ñu jóge si bisimilah rahmaani rahiim jeex si alhamdulilahi rabil alamin dañ ko jëfal salaam